day wax li ñuy wax massa ay bot ku sol dalli bot bu ca sàttee dajee bu tolloo jàpp mën naa raay rek ci kaw bot ya du aajowu muy summi dàll ya di raxas ay tànkam ñu waxee sart yi juróom-ñett la waaye la gën a wóor mooy nga ne fukk la ni mu ko wàññee rek moo nuru juróom-ñett waaye boo ko teqalee moom sart yi fukk la ñuy doon day am juróomi sart yu aju ci dalli bot yi am juróomi sart yu aju ci ka koy sol bu njëkk bi nag nee na mooy na doon der bu fekkee ne da di ay kawas kese ni kawas yi nga xam mbaa loo xam ne daal moom du der moom lañ defar rek mën ko sol ci ab tànk mu wecc ay pot waaye moom taxul mu bàyyi ko ci der kenn du ca masaa dañuy sart moom mu doon der bu ne lu may kawas day mel ni kon kawas mën nga koo raay ni ngay raay ay bot waaye fekk na sart bi mu wax moo lay wan ne la kawas yi taxul bi wax ndax dañuy sart kaw kawas wa la féete asamaan doon der te ñu ñaw ko suuf gi itam doon der te ñu ñaw ko la féete kaw bu doonee der ñu ñaw ko la féete suuf doon der ñaw ko tegge moom bu doonee wëtteen waa leneen tam du ca wàññi dara ci bij mooy der ba ñu dend ko def ca nen ab wala godoron ba lu ko nuru ba mu set wecc loolu mooy sibij ab der sarf ñaareel bi mooy der wa na laab na yoon jàpp ne der wu laab la bu dee der woo xam ne yoon daa jàpp ni laabut ni ki deru mbaam xuux mbaa lu ñu lekk loo xam ne daa medd ñu jël nag der wa defal ci dàll yi wala loo xam ne sax meddut dañ ko rendi waaye yoon moo nanguut ku ko lekk der ba luñ ko defar defar ak lu mu set set bu yoon ne der woowu laabut rek bu ci liggéeyee pot wa pot wa kenn du ca sañ a masaa sartu ñetteel mooy nañ ko ñaw ni wuude yi ñawe buñ ko taqalee ci kol rek ba ñu jàppale ko ci yeew ba mën koo sol ci tànk ba rek waaye kenn ñëwu ko sartu ba xëtt na kon dee su ca mën a masaa sartu ñeenteel mooy bot yi lu mu gàtt gàtt na dem ba àgg ca dojaree fa nga xam ne bu doon jàpp dana raxas ba àgg fa na bot yi àgg foofa su fekkee daa mel ni daal di bukke wala daal di woggante yooyu nga xam ne pegg yi dana am lu ko muur waaye du jàll ba ca dojar ya kon du ca mën a masaa na dem ba suturaal lépp loo xam ne bu doon jàpp war koo ragg ba tey bu fekkee am na xottiku bu rëy bu toll ne ceerum dëggu la it kenn du ca mën a masaati ndax kon suturaal ga ñu waxoon amatu ca juróomeelu sart mooy bot ya bu mu yaatu bopp bu mu xat bopp ba nga xam ne ku ko séen muy dox rek mu daal di xam ni daal la mu yee tax muy doxee nii waaye loolu du aw doxinam mu nekk rek bot yu diggu doomu mel na war a mel bañ yaatu bopp bañ xat ba ëpp sart juróom benneel mooy ba muy sol bot ya fekk mu am ak laab fekkee boobu amul ak laab li ki daa génne ci waram yi rek gannaaw ba mu fajee aajo ba noppi daal sol bot yi xaat kon sol na bot ya te amul ak laab kon bëggee jàppaat faaw day raxas tànk waaye du mën a masaa ci bot ya dañuy saltam laab ga nekk laabuk ndox su fekkoon dafa tiim xam ne tiim laabug suuf la daal sol bot ya kon sol na bot ya ci laab waaye day laabug tiim bu àggee ci bëgg a jàpp faaw ndegam am na ndox te mën a jëfandikoo ndox ma bu dee jàpp day raxas tànk ya waaye du mën a masaa ci kaw bot ya ndax boo muy sol bot yi booba fekkoon na mu amit laab waaye laabug tiim rek la woon dañuy sar ci tam laabug ndox googee àgg ba noppi mu door a sol bot yi li ñu ëpp def bu raxasee benn tànk daal koy solul aw dàllam ndax bañ mu taq suuf su ko defee ni ki jàpp raxas tànkum ndeyjoor daal koy solul bot wa ndax bañ mu taq suuf door a raxas tànku càmmoñ ba
soowee ko aw botam kon sart ba xëtt na ndax dañ ne woon na laab ga nekk laabu ndox te laab ga dem ba àgg ba noppi mu door a sol bot yi moom nag ba muy sol tànkum ndeyjoor ba booba ndab ñu àgg gutoon kon boobu sart xëtt na bu demee bay jàppaat faaw day raxas tànk ya fii nag fi la dugal ñaari sart yoo xam ne boo ko wàññi bëgg mu fukk da nga leen di ber te moom nag mu dugal leen ci biir ndax bi mu ne juróom benneelu sart yi mooy ba mu sol pot ya fekk mu laab da cee teg ne dañuy sart laab googee doon laabu ndox te it laab ga dem ba àgg mu door a sol pot ya boo doon teqale fukk yi nag laab ga doon laabu ndox da nga koy ber muy sart boppam laab ga dem ba àgg mu door a sol pot yi itam nga ber ko gis nga moom da koo dugal rek ci benn loolu moo tax ñu ne la woon nga ne sart yi fukk lañ ak na juróom-ñett la ñu ko ci wàññi yi rek la waaye wax yi benn la moom daa wax ne sart juróom-ñaareel mooy mu sañ a sol ay bot waaye bu fekkee dafa dëgër bopp waaye yoon aaye woon na ko ko niki mu armal aj mbaahum ra te yowu koo gut kooku bu amee yeneen dàll te araam ci moom mu sol ay bot kon nag bu dëgëree bopp am na yeneen dàll te teewu mu sol bot yi bu dee jàpp faaw te raxas tànk yi waaye du mën a raay ci kaw bot ya ba tey sax ni waxee moom bu fekkoon ne tukki ba muy tukki ci boppam moo aay mel ne day daw ay waajuram lay jamono yi jaam xewee moom muy daw ak sangam moom jaam bi wala bu jóg rek ne day rëyi nit wala day sàcc àll li jàmbur yooyu yëpp jëmmi tukki bi tukki mooy la ci ñu waxee dégam tukki ba tukki mooy la rek du sañ a mataa ci kaw bot ya waaye dañu wax ne nag tukki boobu ñàkk a doon tukki mooy yàlla bokkul ci sart yi ndax takk-takk bi mooy gépp jàpp ndal goo xam ne yoon da koo mayee ci boo tukki wut booy tukki itam dooti tukki ba tukki mooy la du tee ñu may la ko bu dee nag ak jàpp ndal goo xam ne ci tukki doom lañ koy mayee waaye bu fekkee tukki woo def la ko may kooka moom boo tukki tukki mooy yàlla def la ko may sart juróom-ñetteel ci ñuy waxee mooy sol nga koy sol ñu ko defee ngir dara jawoo ko mbaa dafa xew dong ak deme noonu na ko sol ngir roy yonante bi ne daana ko sol mbaa mu sol ko ngir fet aw tàngaay mbaa sedd wala fet jiit mbaa jaan wala boog liggéey ba muy liggéey moo tax ñu koy sol lu mel noonu bu ko solee dana ca mën a masaa waaye bu ko solee ci kaw dafa xew rek da koy darajawoo rek kon du ca mën a masaa kon boo bëggee teqalee sart yi da ngay wax ne dàll yi ci boppam daa am juróomi sart nga koy sol am juróomi sart bu dee ci yoonu Maalik boo boolee fukki sart yi nag mu door a sañ bu dee jàpp raay ca kaw bot ya te bañ a raxas tànk ya sart yi dàll yi mooy nay der ñaareel ba mooy nay derwul laab ñetteel ba mooy nañu ko ñaw ñeenteel ba mooy na dem ba muur la nga xam ne doon jàpp war koo raxas su gënee gàtt loola kenn du ko mën a masaa juróomeel mooy bu mu yaatu bopp mbaa mu xat bopp nga xam ne ku ko séen mu dox mu daldi xam ne dàllam yee tax botam yee tax waaye loolu aw doxinam juróomi sart yi ci koy sol nag mooy na ko sol ci ak laab ba mu koy sol fekk mu am ak laab benn ñaareel ba doon laabu ndox mu doon laabu tiim laab ga àgg ba noppi mooy lépp def na ko ca laab ga ba noppi door a sol bot ya ñeenteel mooy sol ga muy sol bot ya mooy lu mu sañ nga xam ne aay wuñ ko ko woon juróomeel nag mooy mu sol ko ngir yoo xam ne yoon moo taxal muy maye jàpp ndal googu ni ki sol ko ngir roy ci yonante bi mbaa fekk ay cib mbaa jaan mbaa sedd mbaa tàngaay waaye daal bu nga ko sol rek ngir dara jawoo ko tiitaroo ko mbaa dafa xew rek ci modèle boo xam ne daal yooyu jamono xew na loolu bu ko defee du ci mën a masa loolu mooy fukki sart yi nee daa bëgg a yeete ci xamle ne waa Malick daal bu ca sart yi dajee amut benn dayo buñ ko wax ne ko boo ci àggee faaw nga summi boot yi raxas tànk yi lu may nag mu dem ba amee janaaba wala beneen cangaayu farata wala boot yi amee xottiku bu rëy toll ne ceeru ndëggu la ba tey boo ne summi tànk ba ba mu jeex wala boog boot yi daa yaatu nga bàyyi boot wa mu diju fi suuf nga tàmbalee ñoo di sa tànk muy génn ndànk-ndànk ba nga xamee ne la ëpp ci dëggu li ñëw naa ñëw ba tolloog yeelu bot wa yeelu bot yi mooy fa nga xam ne boo solee bot yi mooy tolloog sab yeel nga xam ne mooy muur daal yeel ba ndegam bot yi moom dana déjj ci suuf nga tàmbalee ñoo di nag sa tànk mooy sa ndëggu muy génn ba la ëpp ci ndëggu la ñëw naa ñëw ba tolloog yeelu bot wa xëy boo rek jàll summi léppi tànk ba daal di koy raxas te it gaaw summi ba ca des bu fekkee ne yaa ngi woon a kum jàpp jàppal foofu bu baax ne boo xësee summi benn dàll bi rek te fekk nga amem jàpp te bëggu laa ñàkk jàpp moomee da ngay daal di gaaw raxas tànk boobu jàll itam summi dàll ba ca des raxas ko ndax massa ga nga ko massa woon moo wecc woon raxas tànk bi te léegi suñu nga dàll yi amatoo genn jàpp na la boo ko teyee mbaa ñàkk xam tax daloo di gaaw raxas tànk yi rek amatoom jàpp sart yi sart ngir nga mën caa raay rek bàyyi ñoo bari waaye jëmbi na ngay raaye bote moom dafa jàppandi lool loolu mooy da ngay jël sa loxoom ndeyjoor teg ko ca fa tolloog baaraam ya ca kaw borwa jël loxoom càmmoñ bi ron ko ca suuf nga xam ne kon dañoo taamu booy massa bot yi nga tàmbalee ca cati baaraam yi tànk ya fa ca tolloog bot wa loxoom ndeyjoor féete kaw loxoom càmmoñ féete suuf nga daal di bomb nag di ñëw ba nga toll ca dabar ya fa nga xamee ne booy massa di ragg tànk yi xanaa boo massa jàpp raxas tànk yi foofu nga yem ko tàmbalee di masaar ngay ñëw ba foofa te loolu mooy kon nga ëmb dogar ya tuuti ndax yemale ca dogar ya dafa xaw a jafe noonu nga def nag tànkub ndeyjoor am nañu ne moom ngay def itam tànkub càmmoñ nga xam ne loxob ndeyjoor ba mooy féete kaw te ba ngay masaa loxob càmmoñ ba féete suuf am na nag ñu ne bu dee ci tànku càmmoñ moom loxob càmmoñ ba mooy féete kaw loxob ndeyjoor ba féete suuf yàlla waxi rek moom mooy loolu